Allahu Akbar Allahu Akbar. A'udzu billahi من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم guddik juróom ga ku ci julli ñaari rakka bu ci ne Fatiha aqul huwallahu fukiyon ak ñaar mel ni ku julli ci maqama Ibrahim junni rakka julli ci jakkay makka junni rakka saraxe junni deureum lele junni ñu xif te bu ñaanee dees na ko nangu mel na ni it ku jox ndogu xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wépp bu faatoo it ci ñu boole ko ca ña dee ci jihaad te dees na ko musal ci mitiitu dee te bàmmee lamit dees na ko ko defal mu bokk ca dëri àjjana ya te buy dekki dana ànd ak leer gu mel ni jant bi di xeeñ gëtt gu ko neex